fukki ak juróom-benn ak lu topp am nañ CFE diplôme bi te xam ngeen ni CFE bi moom moo gën a jafe entrée en sixième bi kon ku am loolu ci CFE euh, natt nga ay téeméer boo jël am ca gën gaa néew gën gaa néew juróom ñeen fukk wala ñeent fukk lu topp kon euh, noonu la résultat yi tëddee euh, ma ci gërëm di ci sant di ci sargal jàngalekat yi xam ne ñoom ñoo tabax résultat yooyu ak parandel yi nga xam ne ñoom ñoo gunge seen doom ba lii ñu egsi ci ndax li ci li ci am solo lu rek ren nga am lu baax déwén nga am lu yemamaay ndax loolu bu amee rek dañaan ñu amul pilotage ndax pilotage boo amee résultat yi wul di dellu ginnaaw dellu ginnaaw yu mag yooyu ñun nag yàlla mi ngi sutural ci loolu at mu nekk mu neex mu naqari danañ am résultat yoo xam ne ci yi gën Sénégal lay bokk kon nag ñu ngi ci sant yàlla ci gërëm jàngalekat yi xam nga àddina la noonu la tëddee euh, ñëpp xam nañ ko mais nangu fi moo ci des nangu moo ci des nga xam ni yow euh, fi nga nekk euh, bisa ngi ñëw ci kanam da ngay wàcc da nga daje kenn kuy yéeg kon li ci des rek mooy euh, nettali bi moo tax kenn ku nekk fa nga ne war ngay góor góorgóorlu def jëf ju baax jëriñ nit ñi ba nga xam ne nii boo fa jógee nga naa way wa wana rafet te aussi say tànk aussi am ñoo xam ne bu ñu ci seen euh, tànk ñoom tamit danañ dem ci lu baax ndax lii tax may wax loolu mooy doomu adama dafa gaaw a dafa yaakaar ni fi mu nekk du fa jóg mukk te fàttani da ko jëlee ci loxoy jàmbur kon dana jóge ci ay loxoom kon lépp looy def rek nañ ci sóoraale ni bisa ngi ñëw fa nga nekkoon toog fa da nga fa génn te boo fay duggaat da ngay toog rang bañu la dugal boo xalaatee loolu rafetal rek moom moo lay war dimbali doomu adama rek moom moo lay war liggéey rek moom moo lay pour jëriñ askan bi jëriñ jëriñ sa réew loolu nag laa doon wax ni rek ñu ko fàttali sama bopp di ko kenn ku nekk ku ne fa nga nekk rek nga ànd ci ak oyof di dimbali nit ñi sa kem kattan waaye nag ndimbal boobu bu mu tax nga yàq sa liggéey bu mu tax également nga waroo ak euh, li yoon tëral